man maa ngi nag sama turandoo kii nag sama turandoo la sama papa la alors tey papa bu ñu la doon laaj ci saison bi di la féliciter victoire bi nga am nii léegi ban jàngat ngay def ci saison rek. waaw mooy saison boo xam ne yombul ci saison combat yu bëri na ba pare ñu taxawal ay combat yu jëm saison prochaine lamba ji dina tëj suba le quinze août mais le 2 am na promoteur bu ko jël. déjà. Euh, le 6 novembre. Siteu Papa Sow le 12 novembre euh, am na promoteur bu ko jël Tougar ak Tigre Junior combat yu bëri taxaw na le 1er janvier Boy Niang ak Balla Gaye loolu yombul te combat bu ci ne bi mi ngi CNG déposé nga fi 1 million ak ñaari licence yu kon saison la boo xamante ni dañuy xam heure bi muy tëj xam heure bu muy tijji. bu dañuy dem wu. loolu moo lay wane bu ñu tëbee le 15 août septembre octobre dañuy ubbi kon moo lay wan ne duñ bër lu bëri. waa jeex na ndax li ko waral nag mooy Gaston moo ñaanoon dérogation ndax le 31 juillet élection yi mu ñaan le 7 août CNG bi yokkal ko ko ba la 15 ne juillet la waroon tëj saison bu mel noonu da lay wane ne saison bu am yaakaar la ci wàllu làmb. làmb gi dox waaw. léegi nag lan moo ci lu ñuul lu ci nekk. loo xam ne ni boo sañoon ñu ñu waa lii ñuul rek mooy defaraat rek chaise yi ñuy damm lépp ñu teg ko ci kaw mbër mi te mbër mi victime la dañ ko war a protéger ànduñu ci ñiy damm chaise yi mais nañu beneen solution au moins am na ne mën nañoo dindi côté bi amateur yi nañu bàyyi ko fa côté bi ñu ñu dindi chaise yi. lépp ndax am na ñoo xam ne dañuy xëcc di damm ñenn ñu bu ñuy taxaw bu ñuy supporté dañuy jóg taxaw te ñoom it dañuy damm ay chaise loolu daal laa ci gis beneen bi sanction yi dafa bëri li ñuy dagg mbëri comme la CNG sortant ñu bees yi ñëwit la même chose la ñuy def rek di dagg xaalisu mbari loolu dañ ko jéem a dindi mais eh, gis nañ tamit ay promoteurs yoo xam ne seen i journée tamit am na woon na ay jafe-jafe ñooñu tam nan la CNG mën a taxawoo promoteur defaraat rek ñi mën tëgg ñi mënul bàyyi tëgg lamb du farata mais ñenn ñi duñ man di dugg ci luñ mënul li may conseil mooy ku mënul xaaral ba mën nga doog a tëgg ndax su problème amee yow rek yaa koy gérer. ñu gis génération tamit bu bees ñëwaat ay mbër yoo xamante tamit ñu ngi wane seen bopp ci làmb ji bu ñuy avenir ku ci mel ni Ada Fass ak ñeneen ak ñeneen ak sa fils sa max ak ñeneen ak ñeneen ah. waaw non làmb ak looloo ànd ah mbër yi ëpp journée yi làmb continuité lay doon. booy entraîné am nay xale yu ne sa kanam waajal ëllëg ñoo la fiy jëlee loolu nag moo commencé feeñ mbër mu ne am nay xale yu ne ci sa kaw di rêvé def li nga fi def comme yow ni nga doon rêvé def li say mag def loolu moog làmb ñoo ànd. alors entraîneur yu Fass la moom ñu ngi koy jaajëf moom sama papa la quoi alors tey boo doon def jàngat ci saison bi saison bi tëj na nan nga koy jàngatee. waaw am ci mbégte rek parce que promoteurs yi jàmbaar nañu indi nañu mag ñi. indiwaat xale yi booy xool soso reñ bi bilan bi amul kenn kuy amateuru làmb wala nga nekk ménager wala entraîneur wala nga nekk lutteur mersi wax dëgg ñëpp ci kontaan problème bi mooy fenn rek diggante mbër yi ak CNG foofu rek la affaire bi ne mais bu dul loolu vraiment làmb neex na ma ciy ñaanit mooy nañ xam ne mbaam gàtt ne waaye ci jur gi la bokk nañ xoolaat xale yi dimbale leen cachet yi booy yi bëre amul amuñu ci dara combat cent cinquante mille cent mille francs ñu dagale nga ñëw ñu ne am nga 3000 wala am nga 7000 francs kum doon sa doom du la neex dagg bi naam yoon la sart la ñu teg sart bi koo dégg yoon dal na sa kaw mais na changé sart bi dimbale xale yi bu ñu defaloo rek xale yi gën a am cawarte. am na ay xale yoo xam ne tamit ñu ngi commencé di lukkeeku ñu ngi nekk si yoon làmb ay révélation ku mel ni Ada Fass ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñan nga jàppale buñ loo dëgg danañ teg seen tànk ci làmb. làmb ji booy xool ñi ci kaw pare nañu. ku ci 2023 fin 2024 fekk da ngaa war a bàyyi làmb du ma tudd tur na xam nañ seen bopp mais li ko commencé ci rëg yi ba Serigne Ndiaye 2 ba ci ñoom góor a soog ñu ak Fisa Balla a mën ñoo war a téye làmb ji parce que làmb nag ay étape la ñoom bu ñu góorgóorloo tuuti fin 2023 2024 ñoom moo ngi war toll fi Modou Lo Balla Gaye tollool ak gars yi. ay génération la ay génération la rek. génération bu ñëw rek danañ mat 6 wala 7 buñ ci góorgóorloo yéen seen i rakk ñoo bilan wu jàmbaar wrestling première année bi lan nga lan nga am nga satisfaction. actuellement nii amagum nañu euh, six victoires cinq défaites benn sans verdict. ak benn combat bu am. sans verdict mooy mooy mooy waaw mooy amagum nañu douze combats tey mooy quatorzième treize quatorze ñaan yàlla rek defal ñu lii ñu am huit victoires. cinq défaites benn sans verdict bu defee ñu jël ngemb door bi. baptême ah, macha allah sant yàlla mais mën nañu am lépp loolu xëy na ñàkk xam ne ay détails yu ndaw rek mais mën nañu am lépp lu ñu am ren. yal na leen cat seexlu. amiin amiin amiin amiin amiin. saison bi noo ko jàngatee. waaw saison bu riche la saison la boo xam ne tey euh, joxe na joxe na date wane na ne saison bii di ñëw déjà combat yi commencé na taxaw dina nekk saison bu am solo. donc saison bi nag ni ko gisee wax dëgg yàlla ala daame na neex na riche na mbëri bëri nañ combat yu neex am na. lan mooy couac bi lan mooy couac bi ren. couac bi ren lenn rek la CNG lu ñu commencé jugte nii mooy dagg gu metti gi loolu lañ fi doon xeex mais saison bi lépp neex na mais tànk yi ñu jugtewaat nañ ci waxtaanee nañ ko waxtaanee. génération yi nag comme Modou Lo euh, comme comme Gris Bordeaux Balla Gaye bi ñu def bii passé dafa jéggi dayoo ay préparation mystique une heure de temps. waaw xam nga lépp dañ ko war di waxtaane mooy li may wax rek CNG dafa war di sillonner écurie yi na profité bu làmb ji jeexee sillonner écurie écurie yi wane seen i règlement wax li ñuy bëgg jox ko entraîneurs yi ak ménagères yi tey loolu day am leneen beneen technique bu muy indi ci làmb tey en tant que CNG ñi nga xam ne ñoo jiite làmb jog di dugg ci écurie yi benn par benn di jàngale règlement yi loolu day am impact mais tey bu ñu toogee seen i bureau xamuñu luy mbëri di daj ak préparation combat yi ci nekk mbëri dañuy leb xaalis ah pour waajal seen combat yenn million yi boo leen ko naree dagg dee leen avertir deel ñëw seen écurie di waxtaan ak ñoom bu ko defee boo lëggee lu am dinañ ne ah yéen ñëwoon nañ seen écurie ba saison bi tëjee mais doo toog rek di dagg lu la neex. dina ba ay séminaire ñu jéem a def genre yu mel mais man la moom a jaaxal CNG bi ba mu toogee ba léegi deful séminaire deful bilan. ah chaque année bu lamb ji tëjee du wax lu mu am du wax fu ñu koy versé du wax dara dafa mel ni li fi nekkoon moo fi nekk ba léegi mais gën a pire. léegi nag sans communication bi CNG di def moo gën a metti ci làmb CNG dafa war a ubbeeku di communiquer di wax ak nit ñi nit ñi di xam. di informé loolu mooy seen rôle loolu rek mooy couac bi sinon on a fait une très belle saison. bilan wu wrestling seen première année. waaw positif na parce que boo xoolee daanaka suñu sortie yëpp dafa positif donc dañuy ñaan yàlla nag mu continuer ci combat góor bi yàlla may ko ndam may jum de ndam ñu teg saison bi at boote. ne mu ngi dox dañuy nax suñu bopp làmb ji doxul pour mu dox nag gis nga Tyson fi nekkee gis nga ba Tyson nekkee ci bopp dafa valeur ba léegi lamb ji changé wu li ñu doon taxee ngeem la ñuy taxee ngeem li ñu doon bëree la ñuy bëree mais li si changé rek mooy tête de file yi nekkoon ci kaw Yanda bu waxee am na ñoo xam duñ ko déglu mais tey bu Balla Gaye waxee wala Modou Lo wax wala Bombardier wax par force ñu 90 pour cent yi nañ leen déglu comme ñoom ñu ne ci kaw dañu valoriser lamb ji xam nga li ma la wax lamb gis nga benn licence su boo ci amee fu ak fayda faale woo ku am licence ku am nangam faale mu taxaw lijjanti ay problème am yow nga taxaw fi ci wet lijjanti sa problème te doomu adama amul lenn lu loolu mooy nga am sa soxla faj ko mën a dimbali say mbokk ak say xarit amul leneen dundam